mbokk ji la déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kana bi sant yàlla doole sant yàlla bu baax waaye di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa kiram yi ak saxaaba mi ak képp ko yaa ngi topp sunna bi ilaa yawmal qiyaama di ñaan yàlla mi yàlla boole suñu yàlla ñu xëy jàmm indi ko fanaanoo ko yàlla mi jaamal yàlla defal jàmm yokk sutura ñi ba nekk ci kër nekk ci lopitaan bi yàlla mi may aafiya yàlla mi yàlla boole may aafiya julli jiitu allah la yàlla yërëm xarale ajjana ndaw yàlla saamale aada yaa la xale fi yaa egutu leen si yoon siraat mustaqim yàlla defal ñu rabbana atina fi dunya hasana wa fil axirati xasana wa qina azaba naar mbokk jullit yi ñu ngi si rajab comme ni ñu ko waxee woon rek di fàttali ni ñi nga xam ne ñu ngi am bori eh, fayu koor nañ ko fay ñu ngi si wéeri rajab macha allah su ne rajab lan la si teg muy chaabaan eh, eh, buy ne chaabaan muy wéeri ramadan dal di teru mbokk jullit yi bon xakay nañ leen ko waajal bon mbokk jullit yi yàlla subhanahu wa mu ñëw wax si nit mere ko si lim ko mere ñaaka jaamu yàlla bi mu ko ñaaka jaamu yàlla waaye boo boole si li nga xam ne mooy bokkaale ba yàlla subhanahu wa taala di ko xaramal arjana waaw waaye nag yàlla subhanahu wa taala di ko mbugal mbugal boo xam ne fan la koy dugal muy safara loolu nag mooy ki nga xam ne tooñ bi gën a rëy si tooñ yi mooy kii weddi yàlla waaw na si teñ tooñ yi gën a rëy yi tooñ yàlla subhanahu wa taala yàlla wax nga koy weddi توبا بانه پکن ولا توبا الشيطان ولا سنفت لذا الله سبحانه وتعالى ونه فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدق إذ جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين يا الله سبحانه وتعالى من تنمو جنا رير ولا كي جنا ري تون موي كي خامني مونغي ويدي يا الله سبحانه وتعالى دفن له يا الله سبحانه وتعالى waaye tamit dëgg bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala indi gëm gëmut alquran di weedi alquran di weedi alquran yàlla subhana taala mu ne gannaaw bi nga xamee ne yàlla leeral la ne ne alaysa fi jahan alaysa fi jahannama maswa lil kafirin mu ne nga xamee ne mooy safara muy safara bi gën a métti wala fi ñoom mbugalee ñi nga xamee ne dañu weddi yàlla mu ne foofu mag mooy dëkkuwaay kaafir su ne kaafir mooy ku weddi yàlla waaw yéefar boo xam koo xam ne dafa dee si yéefar mooy fan maswa lil kaafirin mooy jahannam mooy ne jahannama moo nekk sa dëkkuwaay yàlla ñu yàlla musal si jahannam jaa bi sidqin wa sadaqa bihi ulaika humul muttaquun waaw yàlla subhaana taala bi wax ki xam ne indi leen indi na leen dëgga muy kan mu yente la muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi leen génne leen si jaamu doomi adama jaamu yàlla jaamu xerem bàyyi jaamu yàlla jaamu yàlla génne leen si li nga xam ne lëndëm la dugal leen si leer indi leen alquran di wax yàlla mu ne nag waaye ñu baax ñi gom nañ ko saxaaba yi àndoon moom gom nañ ko julliti gom nañ ko mu ne ñu ko gom nag yàlla mu ne ñooñeen ulaayika humul muttaquun mu ne ñooñu nag ñooñu ragal yàlla yi waaw ñi nga xam ne <coughs> weedi wuñ li nga xam ne moom la yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi muy charia yàlla bi yokkuñ si dara wàññiwuñ si dara ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam jàngalee ni mu ko indee noonu lañ ko toppee muy alquran bi ak sunna bi yàlla ne ulaayka humul muttaquun mu ne ñoo ñoo ko ragal ñoo ñooy taqwa taqwa mooy ki nga xam ne ragal yàlla mooy ki toppa si li yàlla santaane bàyyi li yàlla tere toppa si njàngale yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla ne yashaa'uuna inda rabbihim wala nag gannaaw bi nga xam ne seen gom-gom boobu mot na comme bi nga xam ne gëm nañ ko yàlla ragal yàlla yàlla subhaanahu wa taala bi nga xam ne moo amee fay mooy fay ku liggéey lu baax rek yàlla la fay ku liggéey safaan ba tamit yàlla na la ko fay waaye yàlla ne nga xam ne dañ toppa li yonent saa sallam indi toppa bi yàlla subhaanahu wa taala ñooñu ñooñu nga xam ne ñoo am taqwa ñoo am ragal yàlla yàlla nag lahum ah ah kañ fay baa ngi nii yàlla ne lahum waaw te yàlla su ne lahum rek loolu kenn mënu koo teggi kenn mënu koo génne maa yashaa'uuna inda rabbihim luñ soxla si yàlla rek luñ bugg si yàlla rek dañ ko am allahu akbar lan mel lan moo leen ko may mooy toppa li nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam indi moom la tax mbokk julliti saay bu ñuy wax nit ñi ne moytandiku leen bidaa rek nañ ko moytandiku kuy indi loo xam ne bokk si diina rek xamal ne yaa ngi uteeg lii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi mu ne nag zalika jazaa'ul muhsinin ah gis nga kuy def lu rafet kuy def lu ku def li yàlla sa fay mooy mooy moo loo bëgg si yàlla yàlla jox la mun a yàlla ne zalika loolu moo naka naka si noonu jazaun mooy fay almuhsinin ñi nga xam ne dañoo sellal dañoo rafetal mbokk ñu lati ma umiru illa li yabudullaha lahu diin diine dañ koy sellal da nga jaamu yàlla jaamu sellal du ngistal du toppal loo xam ne sa bànneexi bakkan la loo xam ne charia indiwoo ko loo xam ne du du alquran sunna bon mbokk jullit yi yàlla ñoo won fi jaamu ko bañ koo bokkaale waaye bañ koo weedi waaw waaye gom alquran bi nga xam ne wàcce na ko si yonente la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente sallam ñu ko leeral ñu ko ñu gom ko toppa ko yàlla subhanahu wa mu ne bon ku bokka si group boobu rek sa fay si yàlla loo bëgg rek yàlla dafa ko jox lahum maa yasaaun loolu amut maanaam dañ ko amut ko amut fu mu em lahum maa yasaaun loo bëgg rek loo xelaat amut kenn kuy dund si kaw suuf ne lima ma bëgg am naa ko amut amut amut benn doomi aadama buy dund si kaw suuf ne man ne li ma yëpp am naa ko soo amee lii ëllëg nga ñëw nga ne bëgg naa lii idda dinga ko am wala doo ko am waaye yàlla ne ñëw ñu nga xam ne ñu am taqwa boobu ragal yàlla boobu si jaamu yàlla boobu yàlla ne luñ soxla si yàlla rek yàlla mu ne nañ ko am waaye nag yàlla mu ne nag zalika jazaahum muhsinin ku jëf ju baax daal lu baax rek ku def lu baax wallahi lu baax ngay am waaye ku def safaan ba nag buubaa nag loo ci am rek bul mere kenn mere sa boppa ndik lan di nga bàyyi yoon di nga bàyyi li nga xam ne mooy li la yàlla subhanahu wa taala santaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal la ko boobaa nag leneen loo defati rek sa mbir bopp la bon yàlla ñu yàlla xiir si gom yàlla yàlla ñu yàlla subhanahu wa taala xiir si topp li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi njàngaleem bi yàlla teg ñu si yoon siraatal mustaqim allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin oh, oh.